salaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di dellu di jégalu bu baax a baax ci géej koy def vidéo bi ñàkk jot la woon rek ak fan yi réaction yi ñuy jot comme ni ma ko waxee woon ci vidéo bi passé rek yaakaar naa kuy wax ba am ñu la waxal li la war rek mooy noppi comme analyse yi ñu doon def yu ci bëri tey gis naa nit ñi ñu ngi koy def di ñu yónnee ñu koy dugal. loolu moo war doon ñu nga a def vidéo ak ñàkkoon jot. di leen wax ni aussi tamit numéro bii ngeen di gis mooy suñu numéro service commercial donc képp koo xam ne am nga loo publicité nga am looy jaay bëgg mu am visibilité wala koo xam ni tey da nga yittewoo woon oto wala kër wala terrain foo ko mën di bëgg boo ñu contacter incha allah dinañ ci waxtaan ak yow. numéro bi aussi képp koo xam ni si am nga xalaat ci li ñuy wax. mën nga ñu ko envoyé par message vocal ci whatsapp bi wala ku bëgg a participer aussi ci série yi boo ñu ko envoyé incha allah dinañ ko dugal ci kàttanu borom bi. tey nag waa Lu Xew TV ñoo la indil beneen vidéo analyse mais cet fois ci ñu ngi ko jëmale ci série bi ñuy wax Madior ak jor mu nekk benn série boo xam ni début bi daaw ma ko seetaan mais dafa am ñu bëri ñu ma ci interpellé ci laa commencé di ko suivre et j'ai trouvé que ni macha allah série bu neex la. lu am sens la parce que li ñuy jouer pratiquement je peux dire que ni lépp lépp moom li ñuy dund ci biir kër yi ñoo yem parce que souvent ñi nga gën a bokkal ñi la gën a jige ñoo lay yàqal looloo waral ñuy wax paaka bi lay rendi sa waay moo koy daas ñu dolli ca ni ku rey say noon say mbokk jeex c'est-à-dire ñi nga xam te ne ñoom ñoo la gën a jege souvent ñoom ñoo lay fexeel Madior ak Dior nag dàpp ni ñu comprendre série bi. benn soxna su ci nekk la ñu naan ko naar xaalis moo ko jiital moo waral muy def bépp xeetu mbon mbon pour am xaalis donc ñu gis ni jaral na ko mu liggéey nit jaral na ko mu raylu nit yooyu yëpp uniquement pour xaalis te jamono jii ñu toll bëri na ñoo xam te ni xaalis moo leen jiital bëri na ñoo xam ne xaalis moo leen jaral ñuy def bépp xeetu bon bon uniquement pour am ko parce que tey bu ñu comprendre film bi uniquement pour maajoor mën a takk yaa ma pour ëllëg mu mën a dond xaalis boobu noonu moo tax naar di pousser doomam à ce que muy def yéen nii donc ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan film bi gis nañ plan yi nga xamante ni si yépp moom la naar di teg uniquement lépp xaalis kese moo ko waral parce que déjà moom ni mu bëggee xaalis ci film bi foo toll mu ngi koy wane ñu leen di rappeler que ni xaalis fii rek lay yam kenn du ko yóbbaale ëllëg loo ko bëri la fii nga koy bàyyi te tey jii nii même boo ko amee defoo ci lu baax boo demee ba dee sax njaboot ñoo koy jël amaana mën nañ cee def lu baax ñoom mu dira fekk fa nga tëdd xëy na ñoom aussi mën nañ ko jël di ci def lu bon nga perte ñaari yoon di nga dee doo yóbbaale jëf ju baax alal di nga fi bàyyi ñu waroon cee def lu baax ñoom ñu koy jël di ci def lu bon nga perte ñaari yoon donc alal boo ko yoree da nga def lu baax boo ko yorul amal sa ngor xam ne tey loo war a am ci àdduna dinga ko am bala ngay dee te yàlla sunu boroom day àtte am na ci jëf yoo xamante ni ci kaw suuf la koy àtte bu ngeen seetloo joor bi mu àndee ak yaayam Mariama doon dem kër ñoom maajoor te naar tegoon diit ak yaama defoon këri janta bi ci benn jus pour jox ko yaayu joor ak euh, joor pour ñu naan ko gis ngeen ni yàlla tourné affaire yi ba yaama ci boppam moom jaawale veer yi ba naan li nga xamante ni moom la yéene woon ñee naan ko kon am na yu bëri yoo xamante ni si nii boo koy yéene yàlla da koy tourner mu këpp sa kaw looloo waral ñu naan yéene néeg la borom ma cay fanaan moo tax képp koo xam ne da ngay yéene nit lu baax lu baax rek ngay am mais ku yéene nit safaan ba tamit safaan ba rek ngay am ba tax na nañuy yéente jàmm donc dañuy jàngate foofu rek lépp lu waa ji def tey ëllëg sa kaw lay këpp waat te nit ñu mel ni naar bi nekk ci série bi dafa bëri ci biir kër yi xam nga lii série rek la benn rôle la bu muy joué mais day day refléter suñu réalité parce que bëri na nit ñoo xamante ne li naar di def ci série bi lu ko raw la ñuy def ci biir kër mu doon affaire yu yéeme mais ñooñu nañu xam ne suñu borom day àtte te képp koo xam ne yaa ngi sóoraale bis bi nga xam ne ci nga war a jàkkarloo suñu borom yu bëree bari doo ko def parce que alal bu la jaralee nga faat bakkan loola alal jaral la nga tas diggante ñaar ñuy ànd nga tàqale leen ëllëg di ko layoo ak suñ borom kon mbokk yi ñu ngi dellu di leen ñaaxaat ko alal àdduna kese lay yam amul dara loo yóbbaale bu weesoo perkaal bi nga xamante ni si moom lañ lay sànge amul leneen looy yóbbaale fee ëllëg fële jëf ju baax rek moo la fa mën a jariñ kon nañuy jéem a sax ci def lu baax te maytandiku yenn jëfi bon yi bu ñu ñëwee ci côté yaama gis nañ tey yaa lépp lu mu dugg rek yaay moo ko dugal bien vrai que nag yaay dafa am influence ci doom mais tey ku toll ni yaa dem ba xam-xam ne sa yaay bu la dee dugal ci lu bon mu wóor ni la lii lu bon la ak lu la sa yaay jige jige jige war nga ko mën a bañ parce que déjà gis nañ ni moom mi ngi commencé di réccu mais réccu bi tamit mënu ko cee génne parce que tout fois police dem ba découvrir lépp. ba xam ni ñoom ñoo commandité meurtre bi su boobaa moom réccu gu muy réccu yëpp du ko ci tax a génn te bëri na xale yoo xamante ne lu ñuy dugg seeni waajur ñoo leen ciy poussé parce que début bi li ñuy gis mooy alal ji uniquement mais bu ñu demee nag ba dara xew ñu door a commencé di regretter te bu ngeen seetloo tamit dans la vie am na ci xale yoo xamante ni seeni yaay ñoo leen di poussé à ce que ñuy ut far bu am xaalis wala yi demee noonu donc bëri ñoo xamante ni si seeni waajur ñoo leen di influencer ci yoo xamante ni baaxul te am na ñoo xamante ni duñ mën a bañ parce que influence yaay dafa fort trop ci doom mais tamit boo nekkee magum jëmm xam-xàmme xam li bon xam li baax même sa yaay bu la waxee defal lu bon bañal ba tëdd ci naaj bi xam ni ëllëg tamit bu dara amee yow doo ci génn donc ngeen bàyyi xel bu baax a baax ci loolu du question que nit ki moo la jur rek que lépp lu ñu diggal da nga ko war a def bu dee lu baax defal. mais bu dee lu bon aussi bul def parce que am na ci waajur yoo xamante ni ñoom alalu àdduna rek moo leen diital du ñu xalaat sax li nga xamante ni si moo ne ci kanam ak li nga xamante ni si moo ci mën a dal seen doom donc fi ñuy tëjee suñu analyse mooy ci cadre Madior ñu gis ni moom il a compris le jeu pour le moment comprendre na li nga xamante ni si moom la bàjjanam di naar di manigancé mais moom déggal waajuram moo tax ba léegi affaire yi ak si fii mais bu desoon ci moom kese kon sëy bii du ko takk donc foofu message bi ñu fay lancer rek mooy waajur yi parfois aussi tamit ñuy bàyyi xale yi ñuy exprimer wu parfois aussi tamit ñu leen di bàyyi ñuy jëlal seen bopp ay décision parce que tey maajoor am na yeneen façon nit ñu mu doon doon bu waajuram waxee day teggi lépp teg fële mais moom déggal waajuram moo tax ba sëyam ak mu ñu takk ko te dafa am ci waajur yoo xamante ni ñoom dañu bëgg a chaque fois ñu xasee ba wax benn wax même bu asamaan si doon wàcc lu tax ñu changé wax boobu noonu te loolu noonu baaxul parce que parfois man nga jàpp dara fekk ni tey li nga jàpp nekkul li gën mais dangay may xale bi moom mi nga xam te ni mën a exprimer wu mën a jël ay décision boppam mais sinon boo nee lii la rek te lii mooy am par force parfois man nga jàpp loo xam te ni gënul te bu sa doom duggee tamit mën na ko lor te bu ñu xoolee maajoor donte accepté na sëy bi sax ak yaama mais malgré lui parce que moom bu lu ko gënal joor lay et loolu noonu parfois day am ci kër yi nit bëgg a takk nit ñu ni ko noonu takkal sa doom bàjjen bi takkal sa doomu nijaay bi affaire yi mel noonu et souvent day indi ay problème parce que même bu ko takkee ndax déggal waajur ëllëg ci biir mën na am ay problème mbokk gi jaare fa am problème aussi bien vrai que nag mën nga ko xelal defal lii defal lee mais quand même décision bi nga bañ ko ko forcer mu tànn li nga xamante ni moo dal xelam mu def ko alors tey lii moo nekkoon suñu vidéo ñu bàyyi leen ngeen déglu réaction yi nga xamante ni nit ñi def nañ ko ci di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah. salaamaaleykum salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw nuyu naa ñëpp taw ba cat cat ba cat ñaan yàlla senegal yàlla ñu yàlla defal jàmm tey nag sama xol dafa naqari trop ndax maa joor ak joor tey jooy naa ci jooy naa trop ndax lii giiñ bon moom musta am naat naat képp kuy yaay rek tey sa xol yëngatu na. lii nii lu am la ndax dangay gis ku la def lu metti ba pare toog di la reetaan naar mi naar ku bon la naar ku bon la série bi daal bëri na lu muy jàngale bëri na lu muy jàngale man tey dama jooy jooy naa ci trop ndax nit nekk ci ay tolof tolof nekk ci ay jafe-jafe yu metti te benn doomu aadama def ko ko kon ñun war nañoo seetaat suñu bopp xoolaat suñu comportement def nit lu metti def ko jëfu soxor yoo xam ne ni ci àddunaam du ko fàtt jaxase àddunaam wala nga liggéey nit mu dof wala nga teg ko méttit boo xam ne ci lay jaare dof xam nga ne lii tey métti na métti na te lu am la ndax am na ñoo xam ne dañuy jàpp nit def lu méttee méttee métti loo xam ne sa àdduna moo koy yàq mooy ci maajoor ak joor dëgg yàllaam tey moom bu am solo la waaye jooyloo ñu bari ndax lii nii mu def lii nii ñu joué dafa am fa am bu du ci méthode bi am na yeneen méthode yoo xam ne nii moom la nit ñi def muy lu bon muy ci wàllu liggéey liggéey li ba sa yaram doo man dara wala mu ñu ñu ñu ñu dëddale la nga am metit boo xam ne danga koy dund yàlla boo sëy ba jaboot fenn affaire bi daal tey ñu bari gis nañ sëy man jooy naa trop jooy naa série bi neex na macha allah macha allah laf cat yàlla na leen yàlla jàppale yàlla taxawu leen ba ñu am connexion yi ñu leen di dégloo xaa yow ak joor amul nu mu neexee woon gis nga police joor la war a laaj bu laajee joor dina xam lépp yaama ak yaayam baaxu sant ñu yàlla yaama ak yaayam baaxu ñu sant ñu ki maajoor ak papaam moom waxi nopp waxaalew ma ko ñoom ñaar ñoom ñaar dañoo mel ni naar da leen liggéey ba lu leen naar wax ñu jox bu leen laajee xaalis jox lu leen laaj ñu wax man ñaar ñi jaaxal nañu waaw lii boo daal wax muy nem ne du joor nii la waxee maajoor ne sa bàjjen génn seeg doomam doy na waar daal nañ seetaan épisode bii di ñëw ba xam nu muy doy na waar daal waa xoolal kii rek xoolal kii yaay meeru joor bi dee na meeru joor bi dee na joor mi ngi noon dof na encore li métti na de métti na lool métti na lool yaay yaama ma waru woon def loolu yaay yaama waru woon def loolu loolu waru ko woon def mi ngi nii yaay joor dee joor dof na metti na de metti na lool. yow tey théâtre Mandior ak joor metti na tey moom wax dëgg yàlla moom théâtre bi moom wax dëgg yàlla tey moom mooy loolu théâtre bi yërëmtu na xoola Dior ak yaayam imagine yaayam def na accident na ah ngi nii tamit Dior tamit mi ngi tamit ah ngi noonu tamit dof na ah li métti na de métti na trop ak ak seen ak ak ñëw bi bu dalee yaay yaama du baax de pareeguma sax muy wax est waroon naa mérité di wax euh, kii nu mu tudd sax muy wax paa bi jox ma jox ma xaw ma 3 millions mille la ko wax jox ma ma dem demandé ay ñii dëjkat yi ñu ñëw muy wax daal yaa ma gën a xam daal yi waxam yi loolu moom kii waru def kii soxor na de bon na trop bon na trop moom. salaam salaam nuyu naa leen saa leen groupement Joro Jor leen seen wàccuwaay mais tey affaire bi yéeme na. daal en tout cas xolu Sénégalais yépp tooy na mais nit lan la mën a defe lii boobu ba léegi nag ah man nag moom wax dëgg yàlla yaay joor gi dee daal moom problème la ci film bi est-ce que mënuñu mën leen woon xoolaat leneen pas muy dee yooyu noonu parce que nag affaire bi moom doy na waar moom wax dëgg yàlla ñëpp dañoo jooy bari ci sëñ Paal dafa mel daal dëgg la fi asalaamaaleykum waa Lu Xew TV nuyu naa yéen ñëpp di leen jaar baax a baax a baax bëgg a commentaire ci Joora Maajoor rek tey mosuñ ci commentaire waaye tey moom dañ ci commentaire ndax tey moom suñu yaram dafa daw trop trop daf ñu jooyloo tey moom kuy yaay rek boo ko seetaanee di nga jooy ndax lii dafa daw yaram trop dafa daw yaram trop ma man tey moom dama jooy ba macha am na loo xam ne dafa ñaaw te lii lépp Euh, théâtre rek dafa am lépp théâtre bu ñu bind rek dafa am mu ngi daw Sénégal te lii ñu bari ñu koy dund ñu ngi ñaan nit ñi ngir yàlla ñu dawal yërmande ci doomu aadama njaay xam ne lii metti na joor amul benn famille gisut ku muy yaayam ñu def ko nii yàqal nañ ko àddunaam lu des ci dundam dootul neexati kon nag ñu ngi ñaan képp kuy jàpp doomi jàmbur di ko def métti te lii na ko xoolee comme ni sa doom kuy def jël yaay jàmbur di ko métital na nga ko xoole comme ni sa yaay te lii métti na daw na yaram trop te lii mu ngi am Sénégal bari ba bëgg a dee fees fi dell kay ñu ngi ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne série bi neex trop ñu ngi koy suivre moom dafa am problème wu lii yàlla moom tam. Hmm? waaw ziare rek ci. si ñeent ñi naar ak yaama maa jor ak joor waaw tonton libaas moom mën naa ne moom moo rey eh, kee waaw ndaxte sarax bi bañ ko joxe na ko génne ko ba génne woon xëy na mën naa am yëpp ñàkk ci am ndaxte moom dañ kaa jox sarax moom ba dem yëpp si débitéer ba naan ko ay huit jours xamu sept mujj nay toog sax ma juumu di ko euh, joor moom nii rek la mën a réagir ndax xamul ko du yaayam amul ko du yaayam juddu xamoo sa baay nekk sa yaay benn jékki-jékki rek sa oto rey ko ci ñun loolu tamit day xaw a moo tax nii rek la mën a réagir waaw am ñuy jàngal foofu rek nday ni mu mel ci doom surtout nday joo xam ne ba nga juddoo ba léegi moom nga gis gisoo sa bàyyi ko nga juddoo ba léegi sa nday joo ngay teg tamit eh, dafa dafa doon loo xam ne nii foo ma jëkk-jëkk rek gisoo sa nii rek day doon koo xam ne maam surtout bu doon góor sax dana xawate mais jigéen jigéen bu kiwut dëgg mënu ko xëcc ci bopp ku joor joor yaayam rek la xam fu mu mëntu nekk moom yaayam ñooy ñooy ñooy ñooy nekk waaw du nëbbu yaayam dara. asalaamaaleykum sama gars yi na ngeen def ngi si jàmm baax a naa wax saxaraat ci maajoor ak joor bi man def ko yàlla sama amul lu gënal moom meer bi du dee te ndaw si du dof tey jii moom seen théâtre bi yàq nañ ko carrément carrément te damaa mujj seetaanu mu sax lépp soo daañu ko comme niñ defoon wiri wiri ñëpp jàppoon na Seexuna deena te deewut meer bi dafay am wàll ba tey te joorit am na fi wàll dañu war a lijjant lépp lijjantuñ ko maire boobu di yaay yaay majoor joor loolu la war a régler leneen bi am na fi place trop trop trop tuuma bu rëy dañ ko teg ci kawam ñaan dañ koy ca Thiès nangam ak nangam te maire bi mu a dem Thiès kon nag waroon na fay toog ba loolu set wecc mi soog a li ñuy def ñu kaa def buñ demee ba bu kaa génne théâtre bi ñu soog a dem gi dem gënaloo moom dëgg yàlla de léeg-léeg moom gënaloo ok. waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen waa Madior ak Dior ma bëgg a ne di parcelle daal lu wax ne comme ni ko femme bi waxee léegi rek naar moom baaxul parce que nit boo demee ba yéen nit mu dee rek baaxoo waaw boo demee ba yéen nit dee rek sa pexe jeex na tàkk parce que def nga def def def loo def rek du réussir ba nga defee deux fois réussirul rek da waroon bàyyi mais topp ni jusqu'au bout tey bu ñu tey lu tey ñooñ ne ko dañoo yaakaar ne euh, fi dafa am dese dafa am ñu def soog mu ne yooyu sama xew doom laa tal def leen ba mu neex lekk leen naan leen nga xam ne bon mënta paase foofu waaw jortam su baaxee su dee tamit baax na dina ma jaaxal astafurlaa yaama ma moog yaay ñooyam baaxuñu waaw parce que man nit même su ma juree def lu bon lu bon moom lu bon la rek man du ma ànd ak sama yaay ci lu bon su ma doon rey sawal mu dëddoog man ànd du ma ànd ak sama yaay ci lu bon waaw parce que su boobaa tam safaam ñun ñaar ñëpp ñoo koy bokk. duñ ne kon yaay jaa taxoon ma ko doon def di défendre yaay déedéet jamais mais sama yaay lu bon du ma ko jàppale ci lu bon waa nañ seetaan rek seetaan a dàq ci ndaje nañ xool fu wànneen lu mu jëkk gëtam incha allah ñoom lépp na su këpp seen kaw te ñoom na yàlla baal mi dafa mel ni ñoom dañoo ami ay anando parce que ñoom luy ñëw rem dañ koy santé gis nga Mariama bi mu doon jox kii ni ñu koy waxatee euh, bëy bi ne ko rayal ma dafa na ko juróom ñett saam kooku utiliser ko parce que am na jour boo xam te ne yaama mi ngi toog nii triste nii mu naan ko oh, yaama lan la daawoo def nii de yaa ngi naan ko ah ma ne damaa xaw a tiit am na loo xam te ne daal maa ngi koy gis mag mooy gis mais xala du mais lépp dafa mel ni affaire bi da koo waaw mais yàlla baax na yàlla mën na fukki boppam bu jóg te ñii moom xam naa moom dinañ feeñ feeñ bu gaaw nañ ko feeñ te xam naa lépp lu doon def si lu ñaaw dina këpp seen kaw waaw koy jërë ngeen jëf